asalaamaaleykum ah, maa ngi tudd Bathie Mboup nekk euh, directeur juddu fii ci Sénégal waaw comme ni ma ko waxee léegi ci njëlbeenu samay kàddu ci nasaraan li waral woote bi ci tënk rek mooy jot nañoo woo xale yi y'a un mois de la ak seeni parent pour dimbali leen ngir ñu mën a jànkoonteeg feebar bi di coronavirus bi sëgam dañ leen ne ñu toog seen kër nag nit ki doo ko toogloo këram fekk nekk amul lu muy dundee xam nañ ne que suñu wayjur yi ay góorgóorlu lañ donc loolu moo tax ñu ne tey nañu woote waat bu jéem leen joxaat ceeb ci biir loolu aussi ñu am beneen ndimbal boo xam ne dañ ko jot mu jóge ci ay soxna yu xarañ yoo xam ne nii ñu ngi nekk ci àdduna bi yëpp am benn association bu ñuy wax Dakar Women's Group nekk fépp ci àdduna bi donc ren ñu tànn ñeenti association fii ci Sénégal ci Dakar pour dimbali leen pour ñu accompagner euh, seen xale yi ak wayjur yi ci lañ tànnee juddu également vu action yi nga xam ne nii moom la def fii ci département de Pikine en l'occurrence euh, ci commune Pikine Ouest Pikine Est Pikine Nord ak Guinaw loolu moo waral tey ñu woote ndaje bi pour mën a jébbal parents yi ak xale yi ceeb bi masque yi ak diwlin yi ak saabu yi pour ñu mën ko dimbali ko mën a préparer wu mën a gën a euh, faire face ak feebar bi nga xam ne nii tey moom la ñëpp. waa masque yi. waa masque yi moom boo leen gisee benn suñu élève boo xam ne ñun ñëw ko jëloon en charge depuis ba mu nekkee CI ba léegi yàlla def muy def formation en couture juddu jëndal ko machine jëndal ko matériel jox ko ne ko defaral ay masque ci la defaree lu mat lu toll ci junni masque yoo xam ne nii dañ koy jox non seulement xale yi mais aussi euh, parents yi. parce que boo protéger xale yi protéger woo parents yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp lu ñuy génn pour uti lu ñu dundalee seen i njaboot ça ne servirait à rien donc loolu moo tax ñu ne nañ ko yox xale yi ak parents yi pour que ñu mën a protéger wu également jox leen saa bu ñuy raxasu de façon régulière pour mën a xeex euh, feebar bi nga xam ne nii tey moo waa waaw donc comme ni ma ko waxee rek man ñoo ñu seen ngërëm moom dañ koy ber parce que ñoo xam ne dañ la accompagner depuis lu toll ci fanweeri at di fayal say doom lu toll ci téeméeri xale ak fukk ak juróom di leen fayal sa njàng depuis nga nekk classe CI ba bu ngay def terminal boo amee bac ñu accompagner la nga def formation boo amee sa diplôme ñu accompagner la pour au moins nga mën a insérer wu dans le monde de l'emploi je pense que ñooñu amuñu seen fay. kon tey gis nañ ne que bien que feebar bi dal na leen daan na leen mi ngi ci ñoo seen kaw bu baax a baax mais terewul ñu ngi ñuy xalaat bi ñu defee don bi matul weer. ñu ñëwaat tey aussi di ko defaat te ñu ngi ñaan yàlla feebar bi jug fi bu fi jógewul nii la ñuy continuer accompagner incha allah parents ba bis ba nga xam ne nii yàlla jëlee na fi feebar bi ndax combat bi combat la boo xam ne ñun ñëpp ñoo ko moom képp ko yaakaar ni yaa ngi à l'abri yaa ngi nax sa bopp ni mu mën a dalee mën na ko dalee keneen ak keneen ak keneen kon nag lu ñu def rek mooy ñu jéem ko xeexandoo ensemble jéem ko fi jëlee mu gën a gaaw ci kàttanu